merci chers téléspectateurs euh, Senzoom euh, TV ngeen ñi seetaan tey nag ñu ngi fii si suñu ay locaux ci quartier euh, Escale si wetu Sonatel bi mbokk yi nag tey ñu ñëw ak yéen ci émission boo xam ne macha allah chaque fois di ngeen ko am fii ci seen Senzoom TV ñu tuddee ko seen tabaski tey nag seen tabaski dañ si waxtaanee tey loo xam ne mooy lu am solo luy jiitu ci boroom kër yi nga xam ne ñu si bëri nelawatuñ muy lan muy xarum tabaski ma seq ak bi nag Alassane Diallo di ko jaajëfal bu baax a baax ak eh, Ablaye Faye alias ma maman gis ngeen ko mi ngi nii sama wet macha allah dama leen di bàyyi ñu nuyoo eh, ma commencé ko ci Alassane Alassane nuyu naa la. waaw jërëjëf Papis donc euh, maa ngi tudd Alassane Diallo donc euh, di agent civil Senzoom fii donc euh, di la remercier et puis aussi di rafetlu bu baax a baax sa thème thème tey bi donc si waajtaay tabaski bi donc voilà. waaw Papis maa ngi lay nuyu di nuyu Alsaan mi nga xam ne moom moo nekk ci plateau bi di am contentement bu baax a baax jàkkaar jàkkaarloog askanu Njaareem ci seen seen Zoom ngir faram-fàcce lépp loo xam ne de actualité la rawatina ci tabaski bii ñu jëm. Euh, voilà jërëjëf euh, laay ma koy jaajëf bu baax a baax maman nuyu naa la. fay naa la Papis maa ngi nii ça maa ngi leen bu baax di leen sargal di kontaan lool ci invité bi. waaw après rek ñu jéem a yaatal. Euh, merci beaucoup dégg ngeen ko tey ñoo ñu laa dalal si plateau bi toujours dama koy commencé si Alsaan Alsaan seen tabaski parce que tabaski tey euh, teru na euh, léegi mu yegg si incha allah mais li waral coow li lépp mooy xarum tabaski tey parents yi ku si nekk gis nga ko soo amee njaboot ak sa soxna xarum tabaski tey am na ñu bëri ñoo xam ne ci daral bi la ñu nekk di wër ak xar yi ni mu chéré Alsaan. <laughs>

nan la mën a def ba am xarum tabaski boobu te xaru tabaski bi léegi dafa dafa métti dafa métti ñu ngi si crise économique tey. tey adduna bi yëpp am problème xaalis euh, tey parent boo gis tey donc mu ngi yor njabootam bëgg euh, tabaski jot nga bëgg a satisfaire say say doom ñëwal leen ba pare teg si xaru tabaski te xar bi dafa métti xar xar dafa métti daral bi boo fa eggee tey xar dafa cher trop trop trop trop trop boo amul cent mille ou bien cent mille jëm kaw doo am xar. donc loolu yëpp problème la tey. sant moom euh, ni mu joxee point de vue mais euh, damay ñëw euh, si maman balaa may ñëw ci laay maman tey xarum tabaski vraiment cher na da ngay dem daral mu wax la ko te aussi jigéen tam am nañ benn habitude bu ñu am mooy atam ngaa jënd sa xar ñu xeebal la ko est-ce que loolu yoon la. waaw Papis loolu loolu moom du yoon. soxna yi dañoo war a dimbale seen borom kër dimbale góor yàlla yi ba pare bañ di xeeb ndax xeeb moom tamit instant yi dañoo toll ci foo xam ne ni maanaam faaw soxna yi di dimbale góor yàlla yi waaw di leen jéem a tolloore ndax njaboot gi moom waaw mooy loolu xotti ku mu am rek ku nekk li nga am rek moom ngay joxe waa frais yi bëri na xotti yi njaboot gi affaire yi daal faaw soxna yi tamit xam nga doxal yërmande xam ne xari daal mooy loolu cher na cher boo xam ne waaw tamit xaalis moo koy joxe faaw gars yi soxna yi daal nañ jàppale góor yàlla yi daal loolu laa ci xam. voilà merci maman nee na soxna yi nañ jàppale góor yàlla yi alsaan euh, moom mu ngi noonu maa ngi koy bëgg bu baax a baax ak sama caméraman Baara seen aussi euh, toujours yéen ngay ci seen seen tabaski euh, laay euh, tey nga dem daral mu wax la xar bi cent soixante quinze mille cent quatre vingt deux cent mille est ce que tey jotu ñu jël ay matukaay muy lan par exemple euh, yar xar gën a bu dem daral jëndi xar. waaw mën naa ne tey thème bi nga génn am na solo lool ndax bokk na ci li nga xam ne moom mooy li gën a am solo ci fête bi nga xam ne moom mooy jëm ndax farata bi mën naa ne sunna la sax waaye ñëpp am xar moom mooy moom mooy mébétu mébétu bés bi. Euh, <laughs> bés bi nak mën nañ wax né paramètre yu bari ñu ngi ci yu bari ngi ci surtout ni ñuy amé xar yi euh, ren nak yalla dogal euh, li nga xamné moy moom mooy xar yi nekk loo xam lu cher la euh nek lo xamné bo xolé rek kérok bañu démé daral euh doon def suñu xamné mo moy suñu liggéey ñu ràññil la né xar yi nekk na lo xamné lu cher la loolu tam bu ko waral mom moy lan d'abord l'aliment de bétail ñu koy amé dafa nek lo xamné lu cher la fi nga xamné mom moy Sénégal yooyu itam benn paramètre la beneen paramètre bi itam moom mooy lan euh, xar yi ci bari dañ leen di jéggaani jégal jëlee leen ci lu mel ne Mali wala lu mel ne yeneen dëkk frontalier yi pour mën leen dugal biir Sénégal pour ñu mën a euh, approvisionner li nga xam ne mooy sénégalais yi nga xam ne ñoo ko ñoo am besoin bi li ñu soxla ci xar léegi nag loolu moom mooy lan état du Sénégal ban politique la war a def pour que Sénégal am autosuffisance en mouton politique yooyu noonu nag ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllum élevage ñu mën leen jàppale jàppale boo xam ne tax ne ñoom dinañ mën a dinañ mën a euh, produire ci li nga xam ne moom la ñuy bëgg ci ay xar moo xam lu ci mel ne tabaski événement bi bu jotee loolu itam lu ñuy toog di xalaat la lu ñu toog war a waxtaane la ko jot na itam état du Sénégal ànd ci acteurs yi ñu mën ko waxtaanee beneen bu am solo mooy lan c'est des faits sociaux yoo xam ne itam wàllum lijjanti xar parce que des fois nga am kër goo xam ne wala yow borom kër gi nga am soxna soo xam ne charge yi ngay teg day metti ba nga xam ne tey nii ñi nga mën a jëndee xar sax tey nii est-ce que da nga ko dajale. loolu itam beneen affaire la. beneen affaire bi ci tegu mooy lan les revenus sénégalais bu ci ne boo daan xool tey jii xayma ab amam dimbali nu mu war a demee loolu itam da ci kii tey da ngay dem daral nga laaj xar mu la gën a tuuti ñu laaj nga laaj ñu ne la cent cinquante bi. nga gis ñoo xam ne dañuy jaayee quatre cent mille yi jaayee un million un million cinq cent cela veut dire que xar yombut ci koo xam ne revenu mensuel boo ko doon xool matul sax cinq cent mille francs tey événement bi dafa laaj dépense yeneen ak yeneen thèmes yooyu xëy na sax duggaguñ ci. moo tax xar fi mu toll nii nekk loo xam ne lu jafe la ci borom kër yi pour ñu am ko. Euh, merci beaucoup Laye ma koy déggee bu baax a baax voilà maman euh, kon yow lan ngay euh, wax sa mbokku jigéen ñi bu seen borom kër ñëwee indil leen xar mu doon xar bu yem yemaay mbaa xar bu rëy mbaa xar bu yooy ah lan nga leen di wax tey yedd leen boo leen doon conseillé tey lan nga leen di wax. ah mais Papis kenn ku nekk ak su tolluwaay kenn ku nekkit ak sa yëg-yëg. ndax buñ la indilee cuuj sax. Hmm. danga kaa war a sant. mais est-ce que cuuj yéen du ngeen nangu cuuj. dégg nga dégg ma la kenn ku ne ak sa tolluwaay. Hmm. ndax bu soxna tëddee góor yàlla dem wuti. Hmm. su ñëwee da nga koo war a sant ci loolu. gërëm ko ndax dañuy eh, li mag ñi naan boo boo lekkee ba suur da ngaa war a gërëm ki nekk ci waañ bi kon ñun soxna yi dañu war a gërëm suñuy borom kër gërëm suñuy càmmiñ ndax tamit mënuñu leen a fay te période bi ñu nekk nii day gën a metti ndax soo ñaqul. amoo maanaam place foo nekk xar moom bu yomb ci yow kon xar mu mën a ñëwee rek man daal li ma wax soxna yi mooy nañu nañu comprendre daal xam ne xar yi moo demee noonu cher na te mënoo jënd xar waaw njaboot gi famille bi doom yi fii après ak xar ba la koy togg tamit ñëwagul moom daal mu ngi noonu Papis na soxna yi muñ daal. na spectateur seen Senzoom TV ah lii moo nekkoon ah, seen ah, émission ah, seen tabaski fii si Senzoom TV eh, ñu leen di joxaat di daje ci beneen numéro waaye nag balaa may dem gars yi naa am lu ma leen wax eh, nee naa leen def loo mën wax loo mën def loo xam wax loo xam soo tëddee nelaw tabaski benn fan la wala xaaju fan guddul day jeex. Euh, tabaski jeex ay bor topp la ñu la koy toppee loolu doy na waar gars yi nag ci ku nekk def lu mu mën ñu leen di jox dig daje peneen yoon ci beneen numéro.